waaw man Cheikhna Keita laa tudd man maay deuxième vice président association des familles victimes euh, du naufrage et du jola maay aussi coordinateur njaboot yi nekk fii Thiès di toll ci juróom-benn fukk ak juróom-benn euh, ñi ngi fe suba la ñuy fàttaliku ñu nga xam ni dañu jege woon nekk ci suñu xol ñu suñuy doom ñi suñuy papp ñii di suñuy soxna ñii nga xam ne ay jarbaat dañ ci ñun defuñu dara lu dul ne dañu bëgg a dellu si ku ci ne am ittéo di préparer Sénégal. ki fi newoon bato bi panne ñu yóbbu ko pour defar ko ñu xamal ko ne ko ne moteur yi baaxul nañ ko stoppi dindi ko def ci yenn moteur moteur bu ci ne mu ngi jar euh, quatre cent cinquante millions ñaar yi mootul sax milliard mu ni loo jaru ko ñan ko jéem a defar kol-kol ko def ko comme que demande bi fële bari woon na nit ñi ragaloon nañ jël mbedd yoonu suuf bi parce que boobu ku jël yoonu suuf bi aussi yaa ngi naan xëy na la ñu kar ma rebelle yi daf ma ni nangam-nangam ñëpp daw wut ci bato bi bi ñëwee ñoom ñoo ko war a réglementé ña fa newoon di jaay billet bu ëpp ba ña nga fa xam nañ leen waaw bato bi bañ koy yóbbu dem na ba ci digg géej gi mu mu paan mais yàlla moo leen ci génne ba ñu yeggee li tax waxuñu dëgg ñooñu bu ca biir ministre des transports moom ministre des forces armées ñu ngi ko ñu ñu ngi ci woon ak ñenn ay ay li tax ba ñu yeggee waxuñu dëgg dañ koo nëbb bañ ko nëbbee loolu ba pare commandant jara bu ko wax ñu ni ko doo ko wax daal koy jël ñoom ñu dellu si ci avion ba ñu dellu see ci avion na pat noppee loolu ah, bañ ko noppee alors lay lu xew tey bato bi jóge fa ñëw ba ci digg ba la ñu wane woon te ba muy dikk ba muy dem wanewaat ko bato bi ko ba mu kuulee ba mu kuulee alors mais néewuñu yàlla ndogalu yàlla day ñëw mais ñu def li ci war ci ñoom ñan ñoo leen sauvé kan moo leen secourir ña doon napp ci boor bi rek ñoo ñoo sauvé ak ñi yàlla génne xoolal ma ñu ne 1863 morts et il y a 64 rescapés la ñuy wax ñëpp ñu ngi ci biir ndox bi am na ñu toog ñetti fan di woote kenn jël si leen Babacar Gaye bi fi moom général bi xam moom rek moo waroon alerte break atlantique boo xam ne mën na dem sauver ay nit mais bañ ko woowee mais dafa ne dalu ko dafa jël avion dem ndar ne day installé benn colonel xam nga chef de corps mais kooku article 49 du code de procédure nationale lu mu wax non assistance à personne a danger il tombe sous le coup de la loi ak nga déggoon aussi de démb ak président bi nga xam dafa waroon jël dafa waroon jël laa wax dafa waroon jël ay mag waa jëlu ko mais la preuve mooy en 2012 Youssou Ndour bi muy jàppale président Macky Sall mais loolu la politique noonu la campagne loolu la campagne donc tey jooju ñoo ñu toog leen xool du leen prix ñu wax ne 14 ans après tey bu ñuy def célébrer anniversaire bi dafay mel ni dara dara xewul Sénégal suba altine la na xool suba koo ci gis dañu faaluwuñ loolu sax toppatoo ñu loolu yëguñu ne 14 ans boobu moo moo gën a rëy Sénégal seen yoon newu ci dañu ko ne ñu ngi laaj chef de l'état après ñun daal vraiment sonn sonn nañu te dañ ñoo faalewul te sénégalais lañu dañu am ay yelleef yoo xam ne ko bu fi manifestation religieuse bu fi munti am leneen ak leneen ñëpp lañ ci lu ne lañ ciy def lu ne lañ fay dugg pour lan waaw ñooñu est ce que ñoom ñoom ñoonu gën ba ñun waruñu am waruñu respecté dañuy laaj chef d'état da ko dañu bëggati anniversaire bi ni ñi toog nekk lu xew tey ñu ne ah ten parce que bateau Joola lañu fàttaliku ñu suuxoon ci bateau Joola beneen bi moo di dañuy wax ni nañu rendre justice ñi tooñ nañ leen teg ci yoon parce que ñi ngi topp enrichissement illicite ñooñu ñooñu dañoo tooñ dañu jël ay bakkan dañu seen négligence loolu la kon nañ daal beneen bi mooy nañuy dimbali famille yi bu anniversaire bi amee nañu ñëw am lu ñu leen di jox ñu mën ci fay que ku ñu woon njàngal ñu kaamir du du gratuit dañ lay jox laax yéen fay togg lépp lu ñu fay togg c'est pas gratuit te ñooñu amuñu dara lañ yaakaaru jël dem nañu nañ leen di dimbali pourquoi ñu jël ba ndimbal ba féetale ko Ziguinchor la ñu wax nañu dag Macky Sall dimbali nañu dimbali jàppale ñu c'est extrêmement important parce que nag vraiment euh, sonn nañu xoox nañu démb ay famille ñëw nañu fekk sama sama kër mais man lu ma leen mënal maa ngi ñoo ma yem samay doom laa ñàkk lan laa leen mën a defal amuma lu ma leen defal amuma lu ma leen jox loolu sama warante ak sama courage moom moom ma jël may dem rek doole xamal naa ne bin naa chef d'état yéen ma woolu def naa li ma war xam naa xamal naa ko ne sonn ngeen te ba ngeen ko leen dimbal ndax tontu tontu tontu xaw ma si dara loolu daal mooy situation bi tey waaw déedéet loolu de dakk na parce que dem wax naa ak Moussa Sissoko président association bi wax naa ak Boubacar ba porte parole ba xamal naa leen ne sunu léthargie sunu noppi moo tax lii am parce que kenn noppeetul xam ngeen plan social bi tey li yëngatu yëpp ngi yëngatu ñëpp ngi wax ñëpp ngi yëngatu ñëpp ngi fu ne ngi def ñooñu nag di dund te amuñu benn faagaagal di wax ñun ñii ñu faagaagal ñu ba pare bëgg ñu noppi loolu loolu duñ ko nangu bés ni ki tey bu affaire bi dañu yëngatu woon ne état bi nag ñun dañoo bokk ci Sénégal dañoo ay citoyen lañu tey lii xew na si ñun ton dañoo war a jàppale dañoo war a yëngatu fondation bi ñu doon laaj depuis Abdoulaye Wade ba léegi fondation ba amoon ba léegi mais dana yu bëri yu bëri duñ ko laajte parce que dana ay ndimbal dana jóge bitim réew ñëw di dimbali famille yooyu nga xam ne amuñu dara amuñu doole boobu pourquoi ñu fondation ba léegi mënuñu ko teg te teg yeneen yeneen yeneen yeneen di ko teg noonu mani ñu jël seeni responsabilité ñun ay citoyen la ñu nañ ñu respecté nañ jox cër nañu jox cër xam ne ñun ñii kat ñoo ñàkk te ñoo ñu ñàkk ñun duñ leen fàtte bi ilaa yow mi diine parce que ñu ñun jegaloon man ku mel ni man sama ñaari doom sama taaw ak rakkam ba ñu jàngee ba war a ñibbisi nekkoon ak seen maam waaw parce que sama soxna foofu laa ko jëlee di ñibbi si yàlla jël leen ci loolu mais ba leen jëlee am naa courage continuer sama àddina mais nag ñu xam dañ ñu war a jox cër bi ma gën a metti mooy papa mu Mamadou Diop doomam ji gaañu ci manifestation ñun suñuy doom ak suñuy baay suñu suñuy yaay manifesté wuñu dañoo fay seen xaalis di ñibbi si par négligence loolu am mais moom dafa dem ci coobaree boppam dem di manifestation yàlla boom ko foofu mu ñëw naa alors ñu koy wax bu ko proposer indemnisation 10 millions na bañ bu ko neexee parce que ñun waxuñu kenn jox ñu nangam mais bëgg ñu bëgg ñu méngale naan man du ma sama doom du famille joolaa ñun waa famille joolaa ñoo gën doomam foofu ñu wax xamal ne lañu respecté dañu bëgg ñu jox ñu cër respecté ñu xam ñun lan qu'est-ce qu'on représente dans ce pays là et c'est extrêmement important Macky nag vraiment euh, yaakaar nañu ni rupture war na am parce que rupture la ñu soxla rupture bi moo di moom ñëw na doxalin bu bees la war a andi ña fi newoon doxalin ba ñu doxoon bu doy waar la doxalin bu bees boobu ñu bëgg moo ne fàttaliku famille lay victime du naufrage du bateau Joola ak rescapé c' est extrêmement important te nag combat boobu engagé nañ ko fas nu yéene incha allah bu nu yàlla may jàmm ba ñu weesu lii dañ ko yóbbu te nag déwén bëgg nañu ni ko waxaat encore na ko quinzième anniversaire bi dañu bëgg mu nekk jour chômé et férié ñëpp di ko fàttaliku c' est extrêmement important pour nous voilà